bébé xarañ mbokk yi moo ñu woon ginnaaw Yamou Sarr moo ñu moom la ñu jàkkaar lool bébé xarañ ñoo ngay xeex dóor dóor ñoo xeex dóor na ko Yamou Sarr bébé xarañ eh xale yi bébé xarañ Yamou Sarr bébé xarañ mbokk yi moo ngem boo ngem bu vert blanc bi waaw moom moom moom yàgg naa def lool dóor na dóor dóor ba dóor mu daanu du ci am ko dóor na ko mu daanu Bébé Khaye dóor na Yaa Moussa mu daanu Bébé Khaye dóor na ko mu daanu